jël ay xale yi cité ak euh, notaire match bi nga xam match jër bi la donc ñu ñëw fii def benn reportage si ñaari coach yi xool ñoom lañ préparé match bi fii si Guédiawaye entre ASC xale yi cité ak ASC notaire ASC euh, notaire ñu koy laaj tey Namou Camara Namou Camara ah. Namou Camara tey euh, xam nañu ne tey match jër la ñu ci deuxième édition psychologiquement coach waaw euh, maa ngi tudd Namou Camara di coach ay Notaire euh, sama sama joueur yi tàggat naa leen préparé naa leen euh, tactiquement physiquement pare nañ sur tous les plans waaw yàlla def na premier match bi dafa avorté parce que situation yi fi amoon ñu reprendre ko matin matinal ñu ñëw mais booy yi tàggat nañ leen semaine bi entraîné nañ durement vraiment préparé yoo xamante ne bu ñu demee ci kanam dina baax yàlla baax na te am naa yaakaar ne dañu am ndam ci match xam nañu aussi parce que da ngeen que am na waaw waaw différence bi bëriwul surtout rek bon temps bi mooy changé mais nag booy ay professionnel lañ war nañu adapté ci loolu. waaw parce que ñoom ñëpp dañuy football championnat ainsi yàgg nañu yow matinal dem di tërën yaa ngi dégg kon euh, loolu di leen problème tàggat nañ leen vraiment on a confiance te yàlla baax na daal yàlla nañu yàlla defal la. mën waaw même groupe la même groupe la même groupe ñoo ñëwaat euh, amul kenn. ñëpp ñoom ñu ngi ci sont en super forme sont en super forme li des mooy di ñaan euh, yàlla may ñu ndam ci match bi pour que ñu préparer suñu quart de finale sereinement bu neexee yàlla. voilà dernière question est-ce que vous vous xam mentalement euh, euh, enjeu match bi tey. ah bien sûr bien sûr notaire cité suñ ko waxee. xam nañ ni match boobu enjeu kese kese kese kese la enjeu ce que la n'empêche que lële. dañ na yaa ngi dégg mais fa lañ ko teg ba tey parce que dër bi la yàlla dafa def loolu bon dër bi yàlla moo koy def yaa ngi dégg kenn du bëgg a ñàkk euh, ay voisins lañ mais nag bu dul dara match la après match xam nga la vie continue yaa ngi dégg ñu ngi ciy ñaan nag yàlla defal ñu ci ndam. waaw ñu am nag beneen xam te daaw nekk meilleur élément notaire ñu donc rek dafa def

Pape Diouf ñu ngi lay ziar baax baax. voilà donc gis nañu tey match bi ñu deuxième édition première édition bi gis nañu ci donc peut-être enjeu yi changé na par premier match psychologiquement nan préparé sa jeu. waaw comme d'habitude parce que ñun moom vraiment football ci la ñu dund. ci loo xam ne mënuñu def. ni ñu daan préparé ci boobu lañ koy préparé. voilà donc mentalement est-ce que suñu pare nañ. waaw pare nañ bu baax. Euh, match bi sax lañ gën a pare que a passé. voilà loolu la moo waral am na détail yoo xam ne nii jëluñu ko woon ak bi ñu ñëwee ba gis ampleur bi. ci ñoom nag la ñu jógal seen bopp. am loo xam ne dañ ko waxante. comme ça ñu nekk. vraiment tey moom. waa gën a daaw fi yaakaar naa test bëri bi ci laajee sànq dañu ñëw physiquement match bi lañ préparé tey yow nag tey na nga préparé say say say waaw physique moom xam nga rek doyul. donc ñun moom vraiment ñëw nañ ci tactique bi technicité bi yàlla defoon na ne mu ngi fi bi lañ gën a appesantir daal. waaw parce que gis nañ tamit cent ah, enjeu match bi changé na par rapport au premier match mm-hmm. bi. parce que bii mën nañ jàpp ne qualifié moo gën a am mille cent te qualifié donc est ce que loolu tamit mentalement dugal ngeen ko i joueur. waaw dugal nañ ko suñu mm-hmm. dara par rapport mm-hmm. parce que match moom vraiment da ngay ñëw pour gagner ko. leneen ci am rek nga xam ne Euh, mooy li nga war a mën a daal mais très franchement amul dara lu mu changé ci suñu discours. voilà ñu ñu jàpp aussi tamit ne daaw yaa ngi woon fële notaire. yaa leen jëlee pour. loolu nga changé équipe ñëw nga équipe bi nga xam te yéen a daje. donc tey loolu lan la lay lan la lay def tey. waaw amul dara lu muy changé parce que man euh, ñii laa njëkk a xam ko waa notaire. vraiment bi ñu mën ñoo sollicité ma xamuñu noonu man dinaa bàyyi suma kon pour beneen bi après bi ñu ko xamee lañu jël ne damaa ñëw la daal parce que sport moom comment am benn définition munoo foo mënti demee foo demoon bu fii ba fenga la ñu benn définition nga nekk équipe bi wala nga nekk équipe bële yow tout cas sa méthode ak sa façon de faire dara du ci changé ñoom xam nañ ma man xam naa leen loolu mooy plus bi bien vrai que ni ñoom xamante ne ñaari mais plus bi mooy que ni man dama nekkoon notaire xam la ñuy dund xam la ñuy fi xam tamit li nga xam ne ñu falaa mu dund municipalisme. donc yow euh, tey est-ce parce que man vraiment euh, début daf may neex ça va me au moins discours bi ngay tenir say joueurs ñoom ñu xam ne carrément vraiment. am na tuuti changement du lu bari sax am na tuuti changement par rapport ak benn benn. waaw tey est tey xaar bi tactiquement nga ñëw xaar parce que tey bu ñu jàppee ne tey enjeu bi bu yaa gën a favorable nga qualifié est-ce que tey jàpp ne tey xale si dañoo reculer bopp na c'est pas ma façon de faire man nag football bon damay ñëw rek li ma entraîné ma ñëw bon man du ma ci ci ci. par rapport ak positionnement bi loolu noonu damay ñëw rek par rapport ak adversaire ma xam ne lii mooy faiblesse am ma utiliser ko pour ñu mën a def la différence. voilà donc fii moom rek tey ñoom tey course yooyu Khalil Cité donc ñun course bi vraiment newoon na daaw notaire ren mu ñëw yor Khalil Cité donc ñu jàpp ne daal match bu naan reex daal la ñu war a assister fii tey fii ak Amadou Bari ci diggante Khalil Cité ak notaire donc ñu bàyyi leen tuuti ngeen euh,